waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw mu mel na ne li nga laaj noonu def dëgg yàlla am na solo association communauté des Baana Baana nag mi ngi ñu dab si biir Covid bi Covid 19 bi mois d' avril nanu ko taxawal 2020 bi ñu ko taxawalee 2020 ñu toog waxtaan concerté bi groupe WhatsApp waxtaan seeg membre yi nga xamante ni bii nii ñoom lañ ko séqal bi nu waxtaanee ak ñoom affaire bi intéressé leen ñu ni kon tey ñu ko jéem a instructuré def ko association Formula Giga jéem a ko déposé bi nu xalaatee si loolu après gars yi toog ñu def élection de vote si leen ma fal président bi nu paree après ñu jël kayit yi jébbal ko ki nga xamante ni bii ni moom moo fi nekkal gouverneur muy monsieur le préfet mu étudier ko wax ni c'est bon lu war a mën a jàll la gannaaw bi loolu jàllee ñu waa gendarmerie woo nañ ñu def seen enquête comme ni ñu koy defee bépp association boo xam ne dafa war a taxaw gannaaw bi loolu jàllee këyit yi dem maatam mais bi mu demee maatam le problème aneke sunu association bi euh, dafa nekk ci diggante entre région de Saint-Louis ak région de maatam raison pour la laquelle gouverneur xamal nañu ni carrément que ne association bii nii kat du doon lu nga xamante bii moom moo koy mën a valider foog mu dem ministère ndax ministre de l'intérieur moom moo doon ki nga xamante ni bii nii moom moo war a mën a valider loolu daal. dem na fa nag bi mu fa demee xaw na fa def ay fan bi yàlla defee mu dellu si si jàmm ah amuñu amuñu récépissé def nañu ay enquête nak laaj mais le problème anaka dañu ñu wax ni turu communauté des bana bana bi foog ñu traduire que en français bi ñu ko waxee itam jël nañ ko jokkoo suñu ben élément bu nekk fofu nonu Matam mu traduire ñu ko en français euh, renvoyer waat dossier yi mu delluwaat ministère ba jamono ji may wax ak yow association mi ngi nekk en cours euh, amaguñu récépissé mais bi mu taxawé bi démé ba en janvier 2020 mille vingt ñu na astafurlah janvier 2021 si nous faisons ay carte de membre si nous préfet mu xamal ni carrément bu carte de membre nous avons activité depuis nous carte de membre 1000 francs nous def cotisation chaque fin du mois 500 Nous si en même temps aussi t-shirt jaay fi cap si masque wax si activité yo nañ nek ba sunu ensemble général pour fexe leeral li nga xamante ni bii ni daal moom noonu ñu dénkoon mu doxoon suñu digganteeg ñi nga xamante ni bii ñoom noonu séqal liggéey bi. Kara loolu nga laa wax dëgg yàlla am na solo trop te dana toll ci njëlbeen boo xam ne njëlbeen ba xaw a metti la ndax ku xam baana baana ak ni ko yàlla bindee dafa nekk secteur informel bu nga xamante ni bii nii dafa jafe jafe jafe jafe mooy que ñu ngi ko séqal ñu si gën a bëri daanaka xamuñu li leen di woo wala buñ ko xamee itam comprendre ko. mais contexte da nga len di woo expliquer len li gëna waral solo ensemble euh, général bi pour gën len xamal suñu position envers ñom ndax tay bala ngay gëmloo nit ki yenn rêve nang ko wo ba mu wuy si la ba pare bu lolu amé nak damay wax ni investissement bi gëna jafé moy ay nit te lolu loolu fépp fu ko yàlla dogal rek am ngeen mille chances pour réussir lu nga xamanteni bi ni euh manam manam lu jafé lay doon ci biir lolu am nañu ay projet yi nga bi ni bii dañoo bëgg région de euh, diwanu Fouta fépp fu nga bi ni bii dëkk la bu nga xamante ni sentir na ni fii baana baana yi am nañ fa doole daanu organiser wu dem fa jéem créer ay cellule buñ fa créer ay cellule jéem fa euh, wacc ay responsable ak ay délégué yu nga bi ni su boobaa ñoom ñoo fay nekk pour gëna mëna sensibiliser nit ñi parce que tay pourquoi pas que association bi. dem ba doon li nga xamante ni bi tey bu ñu fiy dégg UNACOIS Sénégal gi yëpp la ëmb te man aussi man mii di wax ak am na benn association bi nga xam tey mi ngi Dakar am na ay temps contacté woon nañu ñu koy tuddee ASCODEM association des commerçants du marché au Sénégal ba jotoon nañu def ay rapport mais comme li ma la expliqué rek danoo am ay membres yu nga xamante ni bi ni jet dese na noo active te si biir loolu yow même li ngay bëgg comme nekkul sa liggéey yow ko am ñoo koy àndal foog taaxi ronte di am foog nga leen di xaar li nga bëgg lépp itam bala ngay mën def dara foog nga waxtaan si ak ñoom contexte ko ñoom comprendre gu ne exactement li nga leen di wax kon mbir yi euh, du mën a gaawee noonu mais nag euh, comme lu ñuy doogay sumb la te c'est la première fois lu mel ni am fuuta baana baana yi bëgg soppi doxalin donc euh, nii nga mën def di waxtaan ak ñoom ba ba ngay am si ñoom li nga bëgg mais ma lay xamal ni ñi ngi si daal. waaw bu dee si côté membre yi tey mën naa la wax ni bu dee 10 si message lu gën a gàtt lim bu gën a gàtt cadres yi ñoo active. mais si si si def yëpp wax wax ji moom moo ëpp doole jëf ji loolu moo war a gën a waral sax association bi tardé nii parce que bul fàtte ni am na nuy relation yu nga xamante ni bi tey bu fekkee jël nañ ko pourquoi pas que ñu dem ba euh, financement yi nga xam ne moom moo fi mu jigéen tout récemment muy financement DER yi association bu taxawoon comme ni mu war taxawee mënoon na si am ay ay kii parce que am na ñu nga xam ne maa ngi collaborer ak ñoom région de Saint-Louis barki dem jox nañ leen 100 millions si association yi nga xam ne ñoo fa nekk muy commerçant yi te foota gi itam toog naa ak maire de galay mu xamal ne carrément amna financement yoo xam ne dañ koy guen yoo xamne dafa jëm ci mbokk liguey kat yi mais comme ñun instructuré wuñu suñu bop loolu du mëna guen parce que xaalis mëno ko yëkkat di ko teg si loxo ñu nga bi ni la yalla xam doyna donc ñun fokk ñu am nu ñuy soppé suñu bop fexé taxaw ba paré lepp lu ñu bëgg jëlo ko am banque association ba jëmandi jëmay waxe amagul compte banque mais amna ay partenaire banque yoo nga xamante ni ni xamal nañ ma ni sen association bi bu amé récépissé bu ñëwé mëna nañ leen accompagner si wàllu ay côté financement ak si wàllu projet yu bëri yu nga xamante ni bii nii soxla ngeen mais loolu yëpp comme li ma la expliqué rek foog nga tabax nit ñi ba nu tabax ñu xam li nga leen di woo lan la su boobaa yeneen yi doog a mën a ñëw même boo ñëwee tey tegal leen lépp itam te fekk na ñoom pareeguñu itam saison sont des paroles dans le vent. waa social nag moom mën naa la wax ne association bi mu tàmbalee ak léegi wax dëgg yàlla si loolu rek na nekk di di yëngu si lu si lu nga xam ne mën naa la ko limal lu gën a porté am na yu bëri yoo xam ne jot na fi def muy que ga si jamono Covid bi. waa Galaye jamono bi nu soxlaa lu melni social jot nañ fa dem gisanteeg monsieur le maire jox ay euh, masque ak lu melni ay gel ak lu melni ay javel pour dimbalee len ko ci walu social sen walu Covid 19 bi. en même temps aussi bëri ay mbokk band band yi nga xamante ni ñu dog dal na len fi ñi ay fièvre mo len daloon ñu amone problème pour opération du genre ñu jëm len jappalé ci à travers l'association amna am na ñoo bi ni itam danoo tëddoon doon liggéey am lu len gàllankoor ci du jëm sen walu sen xaalis yàq wala du genre.

li ci ëpp social bi la ñu ngi siy bu baax a baax a baax Wow, baax a xam nga nag association bi bi ñu ko taxawalee am na si benn article bu nga xamante ni bi doon wax ni toute discussion di politique ou religieuse sont interdits au sein de l'association. pour xam leen ni carrément loolu dañ ko fi interdit mais nag contexte dëkk moom bu fekkee da nga si nekk foog jaar ci bunt bi parce que ndimbal yooyu jamono bi ñu koy joxe si wàllu social jot noonu rencontré ak adjoint maire bi fi nekk ñu koy wax Souleyba joxoon ko fi ay ndimbal lu toll ni mel ni ay raam ay masque du genre ba mu defaloon ñu décharge gannaaw bi loolu wéyee itam jat dem nañu si préfet bi jébbal ko moom tamit yu ni mel ba mu defaloon ñu décharge euh, maire tout récemment fan yii si gannaaw nga nañu téléphone mu laaj ma ni ma ndax seen association bi dangeen ma ko wax ma ne ko non non mais nag ñi nga fi bàyyi muy sa adjoint moom yëg na association bi ba tout récemment sax suñu journée bi nga xam ne ñu ngi koy waajal jot nañ fa dem ba jox ko lettre pour xamal ko ni carrément am na si lu nga xam ñu ngi koy mëne ba ba moom mu rafetlu ko. xamna sax à travers biir lolu moom moo tax mu waxtaan ak madame la maire ba tax mu abal ñu fii tey ñu koy nga xamanteni ni ci si seen structure la bok ci biir lolu wax deug yalla man bokk na depuis le premier jour bi ñu réunion man ma njëkk proposer ni association boo mënti gis moy dox dafa war am avocat comme yalla def na suñu sunu récépissé mi ngi nekk en cours mën go sori ci lolu wala nga avancé si boobu légui na ma ngi waxtaan ak membres yi comme ni mu lay expliqué. bu fekkon da nga am ay membres yu actif kon sa liggéey dina gëna yomb gëna a gaaw mais li ci ëpp dañuy tok di la seetaan rek. loo waxul waxu xamuñu ko activité itam boo deful du la accompagner mu doon loo xam dafa xaw a métti vis à actuellement ni tey samay activité Fuuta la woon mais yàlla def na tey li si gën a bëri mi ngi nekk Saint-Louis lu si gën a bëri si téléphone nga koy lijjanti te téléphone ku ne xam na ni li mu mën a lijjanti bëriwul mais pour wax la ne la avocat bi tey bu ma woowoon ni ma récépissé bi génn na balaa association bi di ko jot danaa dem jël avocat proposé ko ñu xool nan la ñuy waxtaane ba moom mu mën ñu couvrir au sein de l' association aw fekkee am na loo xam ne danaa ko si jàllale muy lu mënta ñàkk may wax ni Souleymane Diop ndaw la ndaw la bu nga xamanteni bi di tay bo gisee lii yëpp mu ci sonn dafa am lu ko waral parce que Souleymane Diop mi ngi ñëw foot en 2003 ki fi indi won di magam di mo Diop ñu nekkon fi di liggéey di liggéey di liggéey ba mom yalla def mu delu bayima fi may wax ni tay foot bu fekkee luuma yi la amul lu ma dese wax dëgg fa yalla fi la ma yàlla bàyyi teraanga ju am tay ji aussi yalla fi la ko def te amna ay projet xamanteni bi ni tay nii na kité fi ni quitté fii nii donc bëgguma xëy rek bàyyee ko noonu kon du ma du ma tranquille ak sama esprit raison pour laquelle may sonn ni man Fuuta bi nga xam tey desalu dara tudde nan ma fiy doom am naa fi yaay am naa fi lu nekk donc pourquoi pas que liggéey bi nga xamante ni bi moom ma may loolu yëpp ñi ma ko séqal tey ma xool nan laa leen di accompagner si li ma mën ak li ma jàpp ni lii bu ma ko defee ndaw yi ñëw sama gannaaw liggéey bi dana gën a oyof si ñoom may jéem a dox si loolu mu doon li nga xamante ni bii ne wax dëgg yàlla sama gëm-gëmu bopp la nag séentuuma si association bi xaalis séentuuma ci lenn mais liggéey la boo xam dama koy def ngir jaamoo ko yàlla ba lu ma ci yàlla may rek ma xam ne loolu la quoi di wax ni fuuta daal vraiment sama fuuta la ndax sama lépp booy set añam la <laughs> ñaan yàlla jubal kàddu yi rek si kàttanu yàlla ñu ngi lay jaajëfal bu baax Kara yow tamit ok